internet yi dalee nag jàmm Dame Amar Ndeye Soxna Ndour di doom ci Youssou Ndour nag daanaka fu mu toll nii prononcé nañu seeni divorce seen kanamu juge ba loolee nag ginnaaw ay weer a ngi nii nag couple bi nekk nag ci instabilité boo xamante ni bu notoire la seen diggante ak ginnaaw mbirum Iba Thiam bi nga xamante ni nag ci benn soirée nocturne nekkoon soirée privée bu ñu daal di amaloon nag ci diggu couvre-feu bi ci jamono ji ñuy xeex mbas mi di Covid 19 lañ ko daal di waxoon ne moom mi nga xamante ni moom mooy Dame Mar nag dafa bokkoon eh, ci eh, benn nag soirée privée boo xamante ni moom Luuti Ba Jaja Taal ak ñeneen ba ci Iba Thiam mi nga xamante ni daf ci mujjee ñàkk bakkanam ginnaaw ab overdose bu mu def ci wàllum nag drogue ñoom ñi nag fayoon nag benn escorte mu daal leen escorté eh, jëlee leen Radisson Blu Hotel indi leen nag ba ca immeuble Garden ca Almadi ci benn appartement meublé boo xam ne dañ ko daal di loué woon rien que pour daal di fay amal seen soirée privée boobee nga xamante ni daanaka nga xamante ne moom mooy nag di foon drogue kese lañ fa nekkee woon ba euh, nag jiyee ji daal di am ndax Iba Thiam mi nga xamante daanaka nag moo ci daal di ñàkk bakkanam ab overdose la daal di nag amoon mu nekkoon mbir mu doy waar moo xam ne taxoon na ñoom ñi nga xamante ni nag ñoo ci génnoon ñëpp bokkoon ci soirée bi dañ leen daal di nag jàppoon euh, ba jotoon leen daal di nag defeere ci rëbës waaye nag euh, ginnaaw bi seeni avocat daal di saaku nag ci juge bi may leen am liberté provisoire yoon yoon yoo xam ne dañ ko daal ko mujjee sax nangu ndax nag juge ba la mu doon teg mooy ne rek ay doomi baadoola saa bu ñu defee ñu jàppaleen ah, doomi borom daraja comme ni ñu koy waxee nag ñu daal di def ñu bëgg cee daal di génn du boobu les bande moom doom la ci Amet Amar Amet Amar ku ko wax ne Cheikh Amar daanaka nekk ñoom itam ñoo xamante ni nag ñu ñu ràññee nañ ci réew mi même bu fekkee ne Amet Amar dem si yàlla si itam a di ne nag génn àddina ca booba itam scandale bi éclaté ca la Youssou Ndour ñu xam ne ni dem na ba kër ki nga xam ne mooy Dame Amar ak doomam ji di Ndeye Soxna Ndour jëli doomam gàddu ay bagaasam yóbbu ko ci këram teg ko fa ndax bile scandale dañ doon wax ne ñoom famille Ndour xaajuñ ci waaye nag ci fan yi nga xamante ni yëpp la ñu daal ji nag génn ndekete couple bi instable la ñu daal di nekkee woon dañ doon camoufler waaye nag ndekete ñu ngi woon ci ab procédure de divorce boo xam ne dafa waroon nekk ci seen diggante moo tax nag fi mu euh, toll nii nag euh, divorce bi daal dinañ koy nag prononcé même bu fekkente ne itam xibaar yi ñu jot mooy ne moom Dame Amar ak ki mooy Ndeye Soxna Lo ba tey nag ñu ngi euh, nekk de bons amis nag garder contact bi ndax nag ci anniversaire moom Ndeye Soxna Ndour euh, di jabaram a woon nag euh, di bu yàggu dara ca la ñu daal di gis nag moom mi mu daal di koy nag wan ne rek ne man mi tey bàyyiwuma la ndax nag nañu daal di seq jàmm mu may ko ab Mercedes boo xam ne dafa daal di mucc ayib mu mel ni nag fu mu toll nii nag ko doon laam-laamee am naam am dana toog ci sëy divorcé